asalaamaaleykum mbokk déglukat yi daleen nag jàmm ci seen émission allo docteur ñu jéggalu nag ci tarde bi nga xam ne euh, ajuwul ci suñu coobare comme ni ngeen ko déggee tey dañuy dalal docteur Bintou Cheikh Seck euh, docteur Bintou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay waaw tey li ñuy waxtaanee mooy wàllu lekk nutrition ak ramadan waaye tamit dinañ ci euh, bu ñu nee wàllu lekk mën nañ ci euh, sóoraale trouble digestif maanaam jafe-jafe yi nga xam ne euh, dañu koy am ba tey ci wàllu lekk waaye tout le temps docteur Bintou Cheikh Seck dañuy faral di def lien entre nutrition et ramadan te ko wax ramadan wax xiifal wala bokk ñàkk lekk lan moo tax ñaari am lien bu jege lool maanaam lekk ak woor lu tax mu ànd lekk da woor dafa ak xel nangu na ni koo xamante ne da nga toog euh, lu ëpp fukki waxtu ak ñeent te lekkuloo naanuloo euh, bu bës boobu jeexee il faut que nga nga mën a joxaat sa yaram ferñeent yi mu soxla ak ndox mi mu soxla pour que yow sax nga mën a jotaat ci kàttan bi mën a def li nga war a def euh, ci ci ci guddi gi ba ba en tout cas en plus nag am ngir bu yaram parce que mënuñu continuer noonu te mënoo toog diir boobu yëpp lekkoo naanoo ba noppi boo dogee lekk loo xamante ne jaarul yoon du du du nourrir maanaam euh, yaram bi euh, te def loolu lu mat weer te dara du la jot moo tax nag lekk ak ak euh, woor dafa ànd bien sûr te bu ñu nee lekk toujours wér gu yaram rek la ñuy xalaat parce que lekk bii daf ñu indi ay ferñeent yu suñu yaram soxla pour mën a fonctionner normalement. Mm-hmm. Euh, kon dañuy wax auditeurs yi rek ne balaa ñuy sori am na numéro boo xam ne mën nañ ci woote euh, dafa changé nag mooy 77 097 74 00 77 097 74 00 donc dañuy ubbi antenne bi ku ci am laaj boo xam ne aju na ci sa lekkin euh, ci wàllu koor gi ak docteur Bintou Cheikh Seck nga jokkoo ak moom dina la mën a indil ay tontu c'est vrai que woor ak lekk moo ànd docteur waaye gis nañ ne dafay am changement lekkin waxtu yu ñu daan lekk euh, doon nu ñu lekkee noonu est-ce que loolu mën na am coppite ci suñu euh, fonctionnement organisme waaw changement bi mi ngi àddoo ci euh, le fait que ni boo fekkee nii xam nga boo toogee déjà boo toogee lu ab diir même boo toogee ñaari waxtu ñetti waxtu naanoo sax sa yar am na lu muy soppi ci sa yaram lekk bi sax mën na bañ a indi jeexital noonu mais déjà bañ naan ci ay waxtu rek mën na am lu mu soppi ci yaram bi Euh, ñu boole ci nag euh, toog ay waxtoo waxtu yoo xamante ne sa yaram euh, ferñeent ya mu soxla yëpp wala suukar bi mu soxla wala protéines yi mu soxla yooyu yëpp il faut mu dem ci ay réserve di ko jëli loolu am na benn fa lekkin boo xamante ne bu diir bu jeexee diiru koor bu jeexee am na façon lekk boo xamante ne yow mii fa nga xam naka la pour mën a indiwaat yaram ba fa mu toll woon ba nga wóorul donc loolu mooy jafe-jafe bi pour ñu bari te nag aussi li ma ci euh, dolli rek mooy am nga boo wooree fukki waxtoog ñeent wala lu ko ëpp après yaa ngi am ci guddi gi xëy na ñeenti waxtu yoo xamante ne am nga ko pour ñu mën a lekk waaw nga xam ne dañuy xëyee xëy na di lekk boog ci guddi gi mais bu fekkee ni yaa ngi am euh, war a ñeenti waxtu xëy na nga am yoo xamante ne euh, moom nga moom nga mën a lekk ak naan donc il faut que loolu jaar yoon pour que nga bañ am problème digestif yi ñuy wax ndax ne ñu bari ci koor gi dinañu am euh, ay problème mu xërñeeñe dinañu am problème mu ay gaz ay ballonnement maanaam ñu mel ni ñu am ngelaw ci seen dutit yi dinañu am euh, indigestion am na ñoo xam ne sax lekk bi ñuy lekk ci guddi gi dafay tax ba seen nelaw sax du jaar yoon donc euh, ñu euh, waxtaan bi am na solo ngir euh, même su fekkee ni fukki fan a ci des sax ngir fukki fan yooyu ñu mën ko woor ci jàmm ak salaam. Mhm. xam naa docteur da koy fàttaliwaat rek parce que doon nga ko bamtu ci Sud Nutrition maanaam naka la ñu war a lekkee ci weeru koor gi ba du ñu indil gàllankoor yi nga xam ne mën nañ ko am ci wàllu digestion ñu fàttali auditeurs yi rek ne ubbi nañu antenne bi ci 77 097 74 00 00. Euh, alors ñeenti ponk la ponk bi njëkk mooy nit ki dafa war a xëdd xëdd boobu mooy ndékki te ndékki boobu mooy tax ba ñu préparer yaram bi ci koor bu bu sell bu euh, ci yaram boo xam ba yaram bi ba en tout cas du sonn euh, xëdd boobu ndékki kese la ndékki mooy du du bari graisse du bari suukar du bari ay du bari xorom non plus ndékki bu normal boo xam ne mën nañ jël mburu def ci tuuti fromage wala ñu def ci tuuti nen wala ñu def ci tuuti yàpp wala euh, tuuti beurre naan café bu ko la neexee dolli ci sa meew ba noppi euh, jël benn fruit fruit bi mën na nekk tàndarma tout simplement euh, li ñuy bañ ci ndékki bi mooy di ci def ay ay charcuterie yi waxoon nañ ko keroog ay jambon ak yooyu nga xam ne dafa bari xorom dafay wàññi ndox mi li nekk suñu yaram li ñuy bañ mooy mu bari graisse parce que loolu day sonal nit ñi Euh, boo toogee ay 9 heures 10 heures yooyu rek ci nga xëddee woon lu bari graisse dangay ngay sonn ñaareel bi mooy euh, bu ñu dogee loolu dama koy faral di insi dama ciy insister bu ku nit dogee du dékkiwaat parce que nit ki woon na ba pare donc suñu muru yooyu ñuy jël bu dog jotee euh, ba noppi war ci toftal reer loolu kenn du ko def nit ki da ngay dog ak sa tàndarma naan sa lu tàng reer te reer boobu war na bari légumes te war na am ay fruits également Mhm, ba tey ci wàllu reer bi docteur Bintou dañuy faral di gis ne euh, ñu bëri dañ koy guddee def est-ce que dafa am waxtu bu idéal boo xam ne boo wooree ba ngoon ba dog moom nga war a mën a reer su ko defee sa organisme mën a noppalu laataa xëdd di jot. waaw xam nga li ñu jàppale rek mooy ne nit ki buy reer dafa war a bàyyi ñaari waxtu entre ba muy reeree ak ba muy tëddi. loolu moom bu ñu ko jàppee rek dina yomb léegi am na ñoo xamante ne suñu dogee ñoom dañuy teel a reer bu ñu dogee rek reer maanaam ay balaa 8 heures sax reer nañu ba pare su ko dee après ñu dem defi li ñuy def dem tëddi euh, am na ñeneen ñoo xamante ne ñoom seen reer dafay xaw a guddee te loolu lay noonu la ma semaine donc xëy na bu ñu naafilaa ba pare la ñuy reer muy doon ay 21 vingt 22 heures mais bu ñu jàppee ni ñoom war nañu bàyyi à peu ñaari waxtu rek entre ba ñu reeree ak ba ñuy tëddi baax na te ci diggante bi aussi duñ fa nekk di lekk di lekk du lekkantu ba reer jot ñu teg ci reer bi loolu la ñuy bañ. Mhm. Euh, ñu ñëw ci li nga xam ne mooy jafe-jafe yi am ci wàllu lekk trouble digestif ñu bëri dañu koy jàmbat ci weeru koor gi naan xëy na damay seere damay am ballonnement euh, damay génne ay gaz ak yooyu yëpp wala ñu comme ni mu ko waxee est-ce que dafa am particulièrement loo xam ne moom moo koy provoquer de telle sorte que en temps normal ñoom du loolu du leen dal ramadan bi ñëw mu dal leen. alors maa ngi koy commencer ci seere ba seere ba moom li koy indi euh, benn bi mooy ñàkk naan ndox mi parce que euh, comme ni ñu ko waxee fukki waxtoog ñeentu ak lu topp loo xam ne naanoo ndox te ndox dafa am solo ci digestion ba nit ki mën a dem gannaaw kër euh, donc boo boo wooree diir boobu yëpp ba noppi nag am xëy na ñeenti waxtu wala juróomi waxtu yoo xamante ne war nga cee naan lu mat litre ndox wala lu ko ëpp war cee lekk ñu bari dañuy am jafe-jafe ci loolu ba dañuy ñàkk ndox te loolu mën na indi seere beneen bi indi seere mooy bu lekk ba pare euh, enfin en tout cas ci reer bi bañ cee ba def légumes yu doy bañ a lekk ay fruits yu doy maanaam bañ a lekk gàncax bu doy te gàncax boobu mooy li nga xam ne mooy indi euh, dem gannaaw kër loolu noonu euh, mooy indi mooy indi seere yi ba noppee aussi troisième facteur mooy Euh, ci koor gi dañuy faral ne duñu euh, duñu yëngatu comme ni ñu daan yëngatoo ñuy def sport xëy na dañuy bàyyi ba koor bi jàll ñu def sport euh, seen dox du bari noonu ba nga xam ne loolu tam de indi ay ay seere ñett yooyu la alors yi ci des moom xëriñee ñi yàgg problème mu gaz yaag ballonnement yaag yooyu lu ci bari li koy indi mooy ci guddi gi noonu ñu jéem ñu ñu nekk di lekk lu bari yu bari suukar ak bari graisse ñëpp gis nañu taabalu suñu taabalu ndogu yi dina bari ay croissant dina bari ay ay ay fromage ay gine ñu bari daal dinañu lekk sax yoo xam ne ñoom bu dul temps wu koor luñ ko lekk mais bu dee temps wu koor lañ koy indi di ko lekk bës bu nekk nag pendant lu mat weer euh, su ko defee seen yaram daf ko sax tàmmul te loo lekk lu riche riche rek da ngay xalaat ne sa yaram il faut que mu digérer loolu te digestion boobu dafa liggéey la pour yaram bi lu mu gën a riche rek liggéey bi di gën a metti te moo mën a indi trouble digestif yi ñuy wax nii Mhm. Euh, nee nga lu bëri luy indi ci constipation bokk na ci ñàkk ndox bi ak ñàkk lekk yenn fruits ak légumes yu am fibres yi euh, donc euh, ndox mi surtout naka lañ koy organiser naanum ndox mi parce que bu ñu xasee ba xëdd ba ngoon duñu naan naka la organiser naanum ndox bi ba mu jox suñu yaram lépp lu mu soxla. alors fa ñuy dooree naan ndox mi moo tax jóg xëdd am solo fa ñuy dooree ñaa naanum ndox mi mooy ci xëdd ba. li may tegtal daal mooy que nit ki fexe ba ñaari kaasu ndox su ko mënee naan ci xëdd bi dina baax torop mooy genn wàllu litre ensuite bu dogee bu xasee ba dog rek xam nga ñu bari dañuy naan lu tàng loolu ñu tàng loolu ñuy naan mu doon kenkiliba mu doon café mu doon thé ataaya loolu ndox la donc ñu ñu boole ci ci loolu ñu tàng loolu ñuy naan ñu boole ci beneen kaasu ndox muy beneen genn wàll litre te xam nga dañuy naan que ni euh, ndox euh, euh, dañu war a naan litre genn wàll donc léegi bu fekkee ni naan euh, nga déjà entre xëdd ba ak doggu bi nga naan benn litre c'est déjà bien mu desaat rek ñaari kaasu ndox wala yeneen yeneen yeneen ñett peut-être kaasu ndox te loolu nga fexe ni ki fexe ba fa lu ko dalee ndoggu ba ba ci ba muy tëddi ñetti kaasu ndox yooyu wala ñaar yi mu fexe ba naan ko mën na nag euh, euh, kii genn wàllu waxtu bu nekk rek mu naan genn wàllu kaasu ndox pour bañ nag naan ba nga xamante ni du mën a lekk Euh, ci li nga xam ne ñoom ñooy euh, faral di naan boisson sucrée yeeg yooyu est-ce que dina am lu mu indi ci wàllu gàllankoor ci seen consommation ndox wala dafa am lu ñu war a naan ci quantité jus yooyu nga xam ne dafa am suukar ak ndox wala bu ci nekk mën na remplacer moromam. loolu am na solo gis nga ndox dara mënu koo remplacer ndox mooy ndox ndox moom mooy li nga xam ne naan li ñuy naan li nga xam ne loolu kese la suñu yaram soxla jus mu doon jus local mu doon beneen façon jus. mënul remplacer ndox moo loolu moom mënul nekk euh, su ko defee am na c'est ñoo xamante ne seen naanu jus seen naanu bisaab particulièrement parce que dañ koy taamu ci koor gi moo tax sax duñu naan ndox mu doy euh, ba nga xam ne dinañ toog topp bisaab bi ci topp boisson yi ba seen naanum ndox du doy ba loolu moo leen di indil gàllankoor moo tax may faral di wax ne li nga xam ne dañ koy xaw a daw budul koor maanaam xam nga dañuy daw suukar su bari mhm. dañuy rees bu bari li nga xam ne dañ koy xaw a daw ci ci koor gi Euh, ci bu budul koor ci bu dee koor aussi dañ koy daw cest à dañ en cas dañ koy wàññi ci suñu lekkin muy boisson yu sax suukar yi ak yeneen yooyu est-ce que tey jii euh, ci wàllu reer bi est-ce que dafa am lu ñu war a lekk lu particulier loo xam ne dina mën a indi Euh, dina mën a éviter ñu am genre problème trouble digestif yooyu dafa am ay aliments à proscrire comme ni ñu koy waxee yoo xam ne soxlawuñ ko bu ñu dee reer wala am na yoo xam ne dañ ko war a lekk impérativement pour éviter trouble digestif yi docteur nga may ma ma fàttali auditeurs yi rek ne 77 097 74 00 mooy euh, numéro bi pour dugg ci allo docteur 77 097 74 00. waaw tontu boobu mooy ne. Euh, xam nga amul benn lekk euh, plat boo xam ne taamu ci foor gi maanaam yow yow boo wootee ngoon ndax da nga bëgg lekk ceeb ndax da nga bëgg lekk ñaari cin ndax da bëgg a lekk lekk li ñu wax lekku nasaraan wala plan international yow yaay seet man li ma intéressé li am solo plutôt ci ci reer boobu mooy ñaari ñetti yëf benn mooy reer bi nañ fexe ba euh, légumes yu bari dem ci maanaam ay carottes ak ay choux ak ay. ay navet lépp xeetu xeetu euh, légumes yu bari te légumes yooyu na tolloo ak ndaw na tolloo ak xëy nag bu fekkee ceeb nga doon wala nga doon pombiteer nañu toll comme mu ndax gàncax euh, bari li am solo mooy euh, nañu fexe ba togg bi niin te ku bañ togg bu niin mooy da ngay da moytu lu ñu fiiriir moo dafa warul bari ci siñ bi ñuy lekk war nañu moytu aussi comme waxee rek ñi ñuy ràññee euh, diwlin ba nga toggee ñu koy ràññee ci biir togg bi loolu dañ ko war a moytu parce que loolu moo tax mooy mooy ne togg bi bari na euh, diwlin torop ñetteel bi mooy xorom si ñu wàññi ko loolu moom dañ koy wax mu dul koor koor dul koor dañ koy faral di waxte dafa am solo maanaam bàyyi bouillon cube bi ñu ciy def ak di saf-safal ak booy lekk aussi di def ay arôme ak di dolli ay di dolli ay xorom ñett yooyu dañ koy jàpp maanaam mooy li ñuy jàpp rek même bu dul koor ba noppi naan ndox mi comme ni ñu ko waxee. Mhm. Euh, dañuy gis tamit docteur ñoo xam ne bu ñu xëyee bu ñu yeewoo dañuy sonn seen yaram dafay diis dañuy tayal maanaam dafay mel ni du ñu am énergie te pourtant xëdd nañu genre situation yooyu lan moo koy faral di indi est-ce que c'est lié à li ñu lekk walla xëy na seen yaram ci jamono ji ni mu tàmmee woor bi moo dem ba amatul énergie bi mu soxla. alors loolu benn bi mooy euh, premier am na ñu bari li leen di dal coono bi ñuy am ci koor gi. du du lekk ñàkk lekk baag wala koor gi ci boppam li leen koy li leen koy indil mooy ñàkk nalaw parce que justement seen i euh, ñi ñuy organiser seen guddi ba nga xam dañuy guddee tëdd bu teel a yeewu ba nga xam ne ñàkk nalaw boobu moo leen di topp weer ba yépp ba nga dañuy sonn mhm. alors ñi ci des des nag ñoom euh, am na ñoo xamante ne ñoom seen liy indi coono boobu mooy rek ni euh, nañ waxante dëgg boo yeewoo suba nga xam ne tàmmoon nga naan café tàmmoon nga lekk parce que suñu xëdd aussi dafay teel xëdd bi xëy na mi ngi ay quatre heures et demie du matin boo toogatee ba ay dix heures loolu sa yaram dafa soxla lu mu lekk mm-hmm. su da ngay sonn mais loolu c'est normal bi ñuy woor dañu war a bu ñu fàttee lu tax ñuy woor dañuy woor ngir ñu mën a euh, euh, xam lan mooy coonowu coonowu ñàkk lekk ñàkk naan mën a aussi jublu ci jaamu suñu borom loolu la loolu la koor di ci sama xam-xam gu gàtt loolu lañ ciy wut donc nag coono bi mënul ñàkk loolu moom nañ ko wax te mhm. mais est-ce que coono boobu buñ ko accumuler à la comme ni nga koy waxee rythme bi ñu tàmm rythme bu pas bu bon mais rythme boo xam ne adapté wul ak suñu yaram lekk bu diis bi guddee lekk xëyaat euh, gaabe sa estomac ba mu diis est-ce que buñ ko defee ci durée un mois est-ce que mën na indi gàllankoor ci suñu wàllu wér-gu-yaram. alors mën na indi gàllankoor yu bari parce que man lu may dund la day di nga gis ci koor gi ñoo xamante ne seen. seen diabète dafay jóg di nga gis ñoo xamante ne seen hypertension dafay déséquilibré li mhm. nga gis ñoo xamante ne seen i euh, problème ya ñu amoon ay feebar yu ñu amoon yoo xam ne traité woon nañ ko yooyu yëpp dafay jógaat docteur ñu jël auditeur bi après ñu wéy ci loolu asalaamaaleykum asalaamaaleykum maaleykum ñu ngi lay sëñ bi waaw sony bu kareel mhm. waaw man dama doon laaj ci docteur jus yi ñuy jaay ci marché bi. Mm-hmm. muy sachet yooyu. sachet yi. dafa bë waaw sachet yi ñuy jaay ci marché bi mooy yooy def poudre rek. waaw. dafa waaw dafa bëri lool ci marché bi may laaj ba xam ma am na conséquence wala amul amul benn conséquence parce que dama gis nit ñu di ko jënd man nag du ma koy jënd. waaw ma ko doon laaj ban conséquence lay am ak ban intérêt ban intérêt la la la la mën a jox nit. Mm-hmm. ay sachet sachet yi lu muy def. mooy sa tey defu poudre bi rek poudre bi. ban poudre lan la pëndaxu lan la. mooy pëndaxu jus yooyu rek. ah pëndaxu jus yi. waaw dafa bëri ci marché bi daal. Mhm, mhm. mooy mooy fexe yomb yooyu rek. waaw. waaw yooyu ban conséquence la mën a am wala ban intérêt la am daal ban njëriñ la am daal. Mhm. waaw waaw baax jërëjëf ci euh, laaj bu am solo bi 77 097 74 00 docteur balaa ñuy tontu auditeur bi yaa ngi doon wax ne ñu ci bëri ci weeru koor gi bu ñi nga xam ne dañoo am jabet seen seen suukar dafay yéeg seen seen feebar dafay gën a dafay gën a tar. waaw c'est ça parce que euh, ni li ma doon li koy indi. mooy euh, yow loo xam ne sax xëy na daanoo ko lekk ci koor bi mhm. ci budul koor nga xam ne da nga jàpp ne comme lekkaloo journée bi yëpp bés bi yëpp mën nga lekk yooyu nag ay jus ak ay yoo xam ne dafa bari suukar wala dafa bari graisse euh, ay pâtisserie ay gâteau euh, ay ay neem ak ñoom seen te yooyu dafay indi gàllankoor voilà comme lekkuma ko comme lekkuma bés bi yëpp loolu mën naa ko mën naa ko mën naa ko lekk mhm, te loolu boo ko lekkee du foo jaar dina la indil ay problème su fekkoon ni yow amoon nga benn feebar déjà mhm. asalaamaaleykum waaleykum euh, maa ngi lay ziar sëñ bi euh, Mouhamadou Cissokho Mouhamadou Cissokho waaw ñu ngi ziar bu baax rafetlu seen liggéey jërëjëf baax jërëjëf waaw di laaj daal euh, soxna si ba xam la moo gën a baax ci góor góortaal ay eh, meññeent meññeent yoo xam ne daal dana gën a mën a yokk góortaal gi jëmbale ko ci kattan ak eh, yokk ndox góortaal ci lekk lekk yu baax yi daal. Mhm. maanaam xeet lañ doon. Mhm. xeet xeetu lekk yu baax ci góor daal yoo xam ne dana mën a tax góor ndox mi gën a yokku daal. Mhm. ndox mi gën a yokku. voilà maanaam bu gën a mën a yokk ngóor a. waa waaw ndox ndox mi góor ga ndox man man yu bi daal. man yu bi. waaw ci xeetu lekk yu baax yi daal gàncax yeeg yooyu. Mm-hmm. waaw yooyu lañ doon laaj jërëjëf si d'accord jërëjëf Sissoko jërëjëf donc euh, ñu xoola xoolaat beneen auditeur ci 77 097 74 00 asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi lay ziar ku baax. waaw ñu ngi lay mm-hmm. ngi lay déglu. waaw dafa mel ni rëcc na ñu may ko mu jéem a dugaat ci 77 097 74 00 may fàttali auditeurs yi ne ñu ngi suivre seen émission allo docteur tey ñu ànd ak docteur bintu Cheikh Seck di nutritionniste asalaamaaleykum. salaamaaleykum soxna maaleykum salaam. Eh, ñu ngi sant bu baax. incha allah man mhm. Samb. la Kaolack. Kaolack. waaw. ñu ngi lay déglu. waaw waaw damay rafetlu émission bi vraiment. jërëjëf. ndax vraiment docteur santé docteur moom. Mhm. li may wax sama kër ne moom mooy sama docteur léegi. Mhm. ndax man dama je suis diabète dama diabète yi. waaw mais depuis ma koy ma koy euh, suivre. daal vraiment euh, gis naa ne am na amélioration ci diabète. macha allah. waaw ndax dama naan am ay deux virgule nangam nangam. Mhm. mais dem naa ko temps yooyu avant koor gi moo dem seet mu nekk un zéro douze. non un dou un un gramme douze. un gramme douze. waaw ma demaat encore mu nekk 080. Mhm. ah macha allah waaw xam naa ne a vraiment moom moo poussé vraiment ba maa ngi wor. Mhm. parce que vraiment benn problème. Mhm, macha allah yàlla na jëm sur le plan vraiment sur le plan nutrition vraiment ah, maa ngi suivre ay conseils am daal. waaw di ko sant daal na vraiment ah, ah, am na lu mu def ci man daal. jërëjëf. maa ngi ñaan boobu yàlla do wax xéewal daal. amiin amiin amiin. amiin amiin jërëjëf euh, donc mhm, dañ koy euh, jaajëfal ci témoignage bi euh, jërëjëfal aussi docteur Bintou Cheikh Seck ñu xoolaat beneen auditeur ci 77 097 74 00 ñi nga xam ne bëgg nañu participer ci émission allo docteur asalaamaaleykum. ñu ngi sant bu baax sëñ bi. ñu ngi lay fay bu baax. salaamaaleykum bu mm-hmm. baax ah, waaw léegi eh, dafa am lu ma bëgg a laaj ndaxte nit eh, weeru koor day ñëw nit ki naan eh, man sama lii mooy métti dama amee estomac wala dama amee ulcère xaaral man daal su ma daal damay sentir nii moo tax du oor te ndax am na ci ndigal goo xam ne te docteur joxu ko ndigal mm-hmm. man daal loolu laa doon laaj ndax moom am na sañ-sañ ne dog kooram te docteur joxu ko ndigal. Mhm, te docteur teree ko woor daal. waaw waaw waaw ndax day toog ne moom daal dama sentir ne lii daal mu may métti waaw man daal dama ame lii dama ame lii daal instant yi moo tax daal day su ma oree day métti te docteur doxu ko ndigal. Mhm. loolu daal laa doon laajte. d'accord ndax am na ci sañ-sañ. Mhm. Mm, jërëjëf ok jërëjëf jërëjëf. xam naa dinañ bàyyi docteur Bintou Cheikh Seck mu jéem ci xam naa bu fi oustaz yi nekkoon soose ci la ci la tontu bi di gën a leer ñu jéem a seetaat beneen auditeur ci 77 097 74 00 thème bi mooy Ramadan nutrition ak jafe-jafe yi ñuy am ci wàllu nutrition asalaamaaleykum. waaw maaleykum salaam. ñu ngi lay ziar bu baax sëñ bi. Euh, soxna si maa ngi lay ziar bu baax. ñu ngi delloo ziar. man la Baye Saliou Niang waaw ah, di rafetlu émission bi. jërëjëf. di nuyu auditeurs yi ak auditrices yi. Mhm. Euh, di leen di leen ziar baax a baax. ñu ngi delloo ziar ñoom ñëpp. waaw di rafet waaw di émission bi. Mhm. di wax na sama mbokki njaayeen yi. Mhm. ak njaañeen yi ak mbengeen yi war nañ di déglu émission bi. ndax du ndogu lu yem. du ndogu lu de. Mm. te te ndogu. lu nii moom c'est trop c'est trop dalay sookee mhm. waaw di rafetlu soxna soos nag xam-xam dëgg lay waxee dëgg la dëgg la waaw baax na waaw leen jaar baax baax jërëjëf jërëjëf sëñ bi ñang wootee tubaa donc euh, bu fekkee amul benn auditeur euh, docteur ñu jéem a tontu ñi nga xam ne jot nañu dugg woote euh, pour xam ñu jël auditeur bi mujj en attendant nga tontu ñi nga xam ne jot nañu dugg asalaamaaleykum waaleykum salaam ñu ngi lay ziar. waaye ñoo ngi delloo ziar bu baax. Mhm. waaye seen émission bi am na solo trop. jërëjëf jërëjëf. vraiment yéen a ngi yee doomu aadama yi. jërëjëf. yal na leen yàlla taxaw amiin amiin. ci barke Seydina Muhammad. amiin. ma ne. Mhm. naan galaas bu bari ak naan ndox bu sedd ndox bu sedd nii te amul galaas lan moo gën. d' accord. ok mhm. merci. jërëjëf docteur ci indi tontu docteur ñu ñëw ci suñu premier auditeur doon laajte euh, mbuus yi nga xam ne dañu koy jaay ci marché bi te mu am ay pëndëx yoo xam ne buñ ci defee ndox xëy na mu nekk jus euh, nee na dafa bëri lool nee na loolu lan lañu ñu mën a yokkal ci ferñeent ci suñu wàllu wér yaram ak ban gàllankoor lañu ñu mën a indil bu dee am na. waaw yu ci yu ci bari yu mel noonu te bon am na ay marques am na différentes am na yenn yu gën yu ci des mais un général. su fekkee maanaam euh, lu ci gën a bari euh, poudre yooyu du ñu amul amul fruit ci biir maanaam dañu jël poudre ay poudre la yoo xam ne dañ ko defaree euh, mën nañu jàpp ay produits chimiques loo xam ne am na goût par exemple bu ñu nee mango la dafa am goût mango mais mango nekku ci ñu jël ci def ci suukar su bari def ci yeneen yi wax additif ba nga xamante ne buñ ci defee ndox dafay nuroog lu mel ni jus ñu koy jàpp te dañu jàpp ni rek loo xamante ne déjà bari na suukar rek gënul ci suñu wér yaram nañ jàpp ni aussi loo xam ne dafa am additif ay produits chimique ñu ci def ndax mu nuroog lu ñu lu enfin mu neex ci suñu gémmiñ wala nuroog loo xamante ne lekk la te du naturelul gënul ci suñu wér-gu-yaram donc li may wax kooku rek mooy na moytandiku lu mu gën a lu mu gën a lu mu ko mënee rek na ko na moytu yooyu pëndëxu ay jus yu ñuy jaay ci marché bi. Mm, kon docteur su ma la comprendre bépp euh, pëndëx bu ñuy jaay ne jus wu mango la jus wu di tax da nga ciy sotti ndox mu nekk loolu maanaam li ñu mën a jëlee ci fruit bi ci boppam nekkul ci pëndëx bi. lu euh, bu bu comme c'est en général parce que aw ma benn marque boo xamante ne mm-hmm. fi mu nekk nii dañ ma laaj ma évaluer mais su ma doon évaluer benn marque damay jël ci paquet bi ma lire lan lañu defaree lii lan lañ ci dugal waaw mais yi nga xamante ne miin naa ko marque yi nga xam ne miin naa ko en général boo ko xoolee da ngay gis ni lii amul fruit amul benn euh, lu naturel nekk ci biir la ca nekk yëpp yoo xamante ne la dañ ko defar ci benn usine wala ci benn laboratoire def defar ko ba nga xam ne mën na nekk loo xam ne mën nañ ko naan mais nag am na ñoo xamante ne am na ay ay euh, marque yoo xam ne ñooñu moom dañuy jël effectivement dañuy jéem a jël fruit bi daal di dindi ndox mi defa defaraat defaraat bu mu nekk est-ce que su bënn ci defee ndox ah, mooy tane yi ci des mhm. mais que ñu am mais la plupart du temps daal yi ñuy jaay ci marché bi du yu gën en tout cas mhm. euh, ñu ñëw ci question bu si soxo moom nee na euh, góor yan xeetu ñam la mën a lekk yoo xam ne dina ko indil ay apport maanaam dina tax mën niwam gën a bëri te dina gën a yokk ngóoraam waaw loolu gis nga laaj boo xamante ne na bari na ci fu ci page Facebook bi euh, benn ñaari tontu la ci am mooy gis nga nit boo bëggee sa lépp dox en général lekkal lekk bu sell maanaam li ñuy wax euh, alimentation équilibrée bi may faral di wax euh, nga xam ne décrire naa ko ba sonn enfin décrire naa ko lu bari pardon alimentation équilibrée moom ko lekk sa lépp dina dox fonction yëpp parce que moom moo tax yaram bi di dox normalement donc boobu fonction dina dox normalement ak yi ci def ñaareel bi moom amul ñaareel bi mooy amul ñam boo xamante ne en tout cas man scientifiquement mën nañu euh, xool nañ ko ba ne bii nii ku ko góor lekkee dafay yokk ay kàttan temps yële ci surnutrition waxtaan nañu fi woon euh, euh, waxu kii jinjeer parce que jinjeer souvent dañuy naan aphrodisiaque la boo ko lekkee lii boo ko lekkee la ba ma ne woon ni ak ci sama gëstu yëpp yi ma def gisul nii jinjeer ci loolu la bokk donc amul ñam bu ma xam man boo xamante ne mën na yokk ba niiw wala mu yokk kàttan et cetera nen moom daal euh, moom Mouhamadou Cissokho moom rek na fexe ba nekk lekk bu sell su ko defee lépp dox. Mhm. incha allah ñu jëm ci euh, sëñ bi wootee Kaolack moom nee na dafa diabétique mais euh, ni muy toppee yow dicté li ngay joxe ci Sud Nutrition moo tax ba avant koor gi demoon na xool suukaram mu nekkoon ci un un gramme douze. mu demaat mu gis mu nekk 0 gramme 80 te nee na topp lekk bi sell bi nga xam ne moom nga koy digtal moo tax ba fu mu nekk ni mu ngi woor normalement te indilu ko benn jafe-jafe donc macha allah ñuy ñaan mu gën a am tan donc docteur occasion la pour nga dellu si ci euh, alimentation diabétique yi ci weeru ci weeru koor bi naka la ñuy def ba mën a am jabet euh, bu équilibré boo xam ne dina leen permettre ñu mën a woor comme il faut waaw li jiitu mooy déjà nga nga ku jabet ku am jabet wala bépp feebar boo am balaa ngay tàmbale woo da dem ci sa docteur ba sa docteur seet la ba ndax la ni yow mii kat mën nga woor te du la gàllankoor loolu lu am solo la ñaareel bi mooy ki nga xamante ne dafa am jabet moom euh, lekk xëdd boobu moo encore gën a am solo ci moom parce que ki am jabet mënul toog euh, euh, lu mat ñaar fukki waxtu te du lekk maanaam lu ko dalee reer ba ba ba ba ndogu jotaat muy dekkaat loolu baaxul loolu moom day indi diabète bu déséquilibré maanaam dafay tax suukar si yéeg donc xëdd bi moo gën a encore am solo ci kooku ñaareel bi mooy lu weesoo ñëwoon euh, nañu boo boo ndogoo euh, bu boo dogee Euh, nit ki warul lekk ñaari yoon warul lekk di jéem añ ba mu añul woon mu lekk ko euh, ba noppi ensuite euh, ndékki ba bu fekkoon ni sax ndékki nga ndékkiwaat et cetera loolu dañu ne ki ki ki woor dafay reer rek surtout loolu nag moom ci diabétique bi loolu loolu am day wér lu wér la mais diabétique bi war na aussi gàdd jàpp ni na moytu suukar ba mu doon moytu ba mu dul woor daf ko war a moytu aussi ba muy woor maanaam suukar yi nekk ci jus yaak suukar yi nekk ci gâteau yaak suukar yi ci beignet yaak et cetera na moytu loolu te naan ndoxam su defee loolu te fekk au préalable euh, docteur am ne woon na ko mën na woor amul benn problème moom mën na woor te dara du ko fi gàllankoor. waaw keneen kiy woote moom nee na euh, est-ce que nit koo xam ne dafay jàmbat estomac buy métti wala ulcère. di yëg mën na toog ne mënuma woor te docteur waxu ko ne yow mënoo wooral boppam wana mënoo mën nga mënoo ñàkk woor de xam nga dégg naa la nga ne xëy na bu fi ustaas yi nekkoon ñu mën a tontu tontu boobu man mën naa tontu tontu boobu parce que du wàllu diine gis nga nit bu fekkee ni yow leer la na ni yow mii boo wooree da ngay feebar. Mhm. Euh, euh, soxlawul ngay xaar docteur de pour que nga bañ a woor loolu moom soxlawul am na ñoo xamante ne amuñu docteur bu ñu seet bu leen seet. ña nga fenn ci dëkk ba amuñu fa am mënuñu dem hôpital mais xam nañu saa yi suñu wooree dañuy tëdd ci lal du ñu mën a jóg wala am na dara lu leen di metti ba ñu xam ne nii ñoom waruñu woor seen conscience la euh, du question yàlla dafa ni ku mënul ku warul woor ku feebar bul woor donc bu fekkee ni yow toog nga ba xam ne ni yow mënoo woor bul woor te surtout que diine bi jox nañu islam jox nañu alternative nañ demal nga nourrir benn pauvre nga dundal kenn ci koor bi euh, su ko defee yow mi sa woor teggeeku la voilà bu fekkee ni lu jàll la bu bu bu yàggee mën nga ko mën nga ko fay mais man li ma c'est très clair dans ma tête ni ku feebar ci bu yëg ko ci sa yaram mënoo woor bul woor. kon daal nit ñi li ñu war a def mooy déglu seen yaram xool lu ñu àttan bañ a forcer. exactement léegi nag bu fekkee ni yow am nga possibilité dem ci benn docteur ba moom mu def ay analyse am def seet la ba mën a ne yow ah lii moo la dal moo tax boo fooree da ngay feebar xayrul mais soo ko amul nag bu boobaa daal yow mii yaa war a déglu te li ci lépp nag c'est vrai nit ki dafa war a déglu yaramam écouter son corps li sa yaram di wax moom moo amul keneen ku mën a xam yow nii li ngay yëg que yow mii di ko yëg. Euh, sëñ Saliou euh, Niang bu tuuba moom mu ngi doon wax ci wàllu ndogu bi nee na ndogu quantité yu bari liñ ciy lekk comme li nga waxoon rek ci loolu la dellu si waat nee na waruñu mën a di lekk lu niin ci xeetu ndogu ndax jafe-jafe la ñuy indil. waaw Serigne Saliou moom li mu wax mooy li ma doon wax rek mooy ne soo dogee bëgg yow mii nga ne boo xëdduma woon xëdduma woon woon damay ndékki boo nee man añuma woon bon damay lekk ceeb après ne léegi nag il faut ma teg ci reer bi loolu moom foo jaar di nga am jafe gis nga euh, Rosalie am na ñoo xamante ne euh, koor gii nga xam ne suñu lekk dafa day wàññeeku ñoom bu ñu génnee ci koor gi dañuy am yaram loolu xam nga yenuwul maanaam mm-hmm. si am na lu ko xamante ne normalul ci loolu ça veut dire yow sa lekk dem na ba jéggi dayoo te nañu jàpp ni gis na suñu yaram soo demee nga xam ne yow añuloo euh, ba egg ci guddi ga bu guddi gi jotee euh, añ boobu moom fexe na ba nga xamante ne gàll li nga añul gàllankooru ko maanaam dafay adapté wu ci loolu ba nga xam ne yow boo jàppee ni il faut que ma rattrapé la ma añul woon jaa ngi lekk-lekk bu ëpp donc sëñ Saliou nii di Touba li mu wax ni am na solo moom lay faral di wax te gis nga ku woor ba ngoon boo déglu vraiment li ñu doon wax écouter son corps soo dégloo vraiment li la sa yaram di wax dangay gis ne ni sa xiif du demee noonu cest à boo xasee même ba làkk tànnaar ma naan lu tàng bari sax dañ lay naan ah man ne bu ma xasee ba lekk loolu dafay mel ni dama añ wala daf mel ni dama reer mais boo jàppee ni man ah fi mu nekk rek ma pon fukki waxtu ak ñeent war naa xiif xiif bu tar foo jaar di nga xii da nga koy def sa bopp ba xiif bi tar nag justement. Mhm. Euh, kon nag dañuy ubbiwaat antenne bi ci 77 097 74 00 77 097 74 00 dernier auditeur bi woon sànq moom moo doon laaj ndax naan ndox bu sedd bu am ay glaçons ci biir ak naan ndox bu sedd rek ban moo ci gën a baax. alors ma wax boobu parce que euh, euh, kii laaj bu ñooy faral. ma lay wax rek ni naanal ndox ba nga bëgg na mën na tàng na am mën na sedd mën na glace ci biir lenn li ñu war a jàpp mooy am na ñoo xam ne suñu ba pare naan ndox sedd sedd ba jëkk dayoo mën na leen indi bi ñuy wax indigestion maanaam seen digestion boobu du jaar yoon ñam yi du jàgg daal donc ñu jàpp mu bàyyi ci loolu su fekkee ne dal di nit na na wàññi seddayu ndox mi c'est tout amul dara lu mu war a tere nit mu naan ndox mu seddal Euh, ci wàllu ndox mi laay des ba tey docteur Bintou est-ce que di lekk di naan c'est recommandé maanaam euh, ci booy añ wala reer jël ay kuddu teg ci ndox continuer lekkaat après di naan en même temps. alors loolu amul dara lu muy gàllan lu muy indi euh, am na ñoo xamante ne dañ la dañ leen koy déconseiller maanaam mooy ñi nga xam ne dañuy faral di xet ñi ñooñu dañ leen di wax ndax sax ñoom bu ñuy lekkee ba pare war nañu xaar diir sax bala ñuy naan ndox. su ko defee ñu am may temps seen ñam bi ñu génn estomac bi euh, ñooñu donc day mën na jokk xel ñi euh, mais aussi mën nañ ko euh, mën nañ ko tere ñi nga xamante ne peut-être ñoom dañuy gaaw a suuf parce que bu fekkee yaa ngi lekk di naan ndox sa sa biir day gaaw a fees donc bu donc il vaut mieux nga lekk ba pare xaar tuuti sax door a naan ndox ñoo bu loolu yëpp amul su la neexee nga naan ndox di lekk di naan ndox amul dara lu muy diw lu muy wàññi wala lu muy yokk ci ñun Mhm. Euh, sànq dafa mel ni wax nga ko ci bi ngay tontu am na ñoo xam ne bu ñu xasee ba dog rek day mel ni dañu am boulimie entre bu ñuy dog ba bu ñuy ba bu ñuy xëdd maanaam dañuy am ay envie lu ñu gis dañuy am envie lekk ko loolu lan moo koy faral di indi docteur ak bu ñu bëggee mu dagg naka la ñuy def. alors loolu li koy indi mooy ay carence maanaam di nga gis koo xamante ne foo ko fekk bi nga am envie lekk naan ay jus wala naan loo xam ne dafa suukar lu tax. parce que li muy lekk ci fruit doyul te tout xam nga fruit yi moom am na suukar sucre naturel la am na yeneen yeneen yu ci nekk yoo xam ne loolu la ñu soxla bu fekkee ni yow ñu ne au moins nit ki war na lekk ñetti fruit ci bés bi te ma koy may bamtu ni fruit du rekk ay pomme banane ak orange mhm. fruit mooy sëddeem yaak mooy solom yaak mooy sump yaak mooy kóonu yi mooy yooyu yëpp donc yëpp mën nañ ci jot te yu si ñëw na ah, ñëw na donc ñi ñi nga xamante ne dañuy am ay envie yu bari noonu te ay souvent yoo xam ne amul solo la te dafa bari ay suukar wala ay graisse euh, en général c'est parce que seen lekk équilibré wul maanaam li nga xamante ne moom lañu suñu yaram sax moo leen di manqué ñu koy wut feneen comme exemple bi ma joxee ci jus de fruits yi ñu ñu lekk fruits yu doy souvent ñu naan bari yi waaw ah, et li ma ciy dolli li Rosalie mooy yoo loo xamante ne yow nii bëggoo ko lekk euh, maanaam xam nga ni lii bu ëppee ci sa ci sa ci sa lekkin baaxul ci sa wér-gu-yaram waroo ko jënd di ko def ci sa kër yow mii boo xamee ni yow kat boo jëndee chocolat da ngay topp chocolat bi di ko lekk bul ko jënd di ko denc euh, te bul ko dencal sax keneen même pas xale yi bu fekkee ni xam nga ni yow jus bu nekkee ci frigidaire bi foo jaar di nga ci naan lu bari te baaxul ci yow bul denc ju ci frigidaire bi te kenn ak mu nekk xale mu nekk mag góor jigéen euh, wala màgget kenn warul naan topp ci naan ay jus wala di lekk yeneen yoo xam ne c'est trop riche tout le temps mhm. waaw docteur ci simili yi ñu desee yan conseil ngay jox ñi nga xam ne gis nañu ne dalee ko koor gi ba tey au lieu ñu maintenir seen poids santé wala ñu wàññeeku dañoo gën a yokku li des ci koor gi xëy na bëriwul li ñu woor moo ëpp mais ñooñu naka la ñu war a def pour rééquilibrer seen bopp ba delluwaat ci seen poids santé bi ñu nekkoon bañ a gën a jël poids fekk koor gay jeex. waaw kañ question bu am solo laaj bu am solo euh, donc xam nga jàpp nañu que nit Euh, reer bañ a nekk di xëddaat di di di ndékkiwaat loolu mooy benn bi ñaareel bi mooy euh, euh, ci xëdd baak reer bi wax nañ ko ñu ne bu ñu lekk lu niin bu ñu lekk lu bari suukar nañ ci def légume nañ ci def ay fruits loolu tam nañ jàpp ko ñetteel bi ma ciy dolli mooy nañu moytu lekk bu ëpp c'est-à-dire toog rek di di ko <laughs> comme di waraax <laughs> léegi waaw xam naa géyeen yaag joween yi xëy na ñoom ñoom ñaa war a mm-hmm. tooj ñoom ñooy samay kan ñooñu war a waraax bi dañu war a wàññi cest a diir lekk nànk posé nit ki suy lekk bu jëlee benn kuddu wan na teg kuddoom euh, euh, saxka mi wan na door a jëlaat beneen kuddu boo xam loolu ko koy lekkee rythme boobu nank dem ba nga xamante ne yow di nga yëg ni fii fi mu nekk nii de euh, suur naa te suur boobu du suñu du suur lekk maanaam ba sa biir fees dell déedéet suur bi mooy te yonent bi sallallahu salaam wax na ko mooy ne boo lekkee am na war na am benn xaaj ci sa biir yoo xamante ne ngelaw nga ko ngelaw nga fay bàyyi euh, su maanaam ki nga xam ne dafa suur dafay yëg nii ni rek fi mu nekk nii daal moom euh, li mu lekk doy na waaye ëppul euh, baax na mën na arrêté su ko après bu tax xam lekk fruit am xeex donc loolu suñ ko boolee bàyyi lu niin yi bàyyi yu saf suukar yi wàññi lekk bu bari bi ki nga xamante ne sax dafa demoon ba am ba grossir ci corps bi dina mën a sax wàññeeku même ci fukki fan yi des mhm. waaw ñi nga xam ne effet contraire bi moo leen dal koor gi ba mu da ba mu jotee ba tey ñoom dañoo jeex est-ce que ñooñu war nañu am jàmbat est-ce qu'ils doivent ci jeex bi nga xam ne dañ ko jeex wala lu baax la wala lu ñu war a corriger la alors jeex bi xam nga jeex bi kañ lay mën a war a war jaax nit yi mooy bu fekkee ne da nga jeex ba dem ba affaiblir ma maanaam nga nga sentir faiblesse. Mhm. nga gis ne ni daal yow fi mu nekk nii boo xëy da sa kàttan wàññeeku na yaa ngi am ay yaa ngi niir et cetera loolu ça veut dire que sa wàññeeku bi baax sa wér gu yaram sa yaram am na lu mu soxla lu mu dul jot. su ko defee sax nit ki war na dem xooli yaramam ci docteur bi wala mu seet mu seetaat xëy na li muy lekk mais ki nga xamante ni gis nañu ni koor booy woor woor bu jaar yoon foo bu fekkoon ni am nga graisse boo war a perte da nga koy perte. surtout nag graisse bu nekk ci biir bi donc man man sax damay wax ne ni loolu sax lu baax la nga dema dem ci ko di woor woor bu sell ba nga xamante ne yow sax xëy na am na biir ay espèce su graisse yu nekkoon ci biir baak wala ci wàcc yooyu yu xaw a wàññeeku loolu man pour man lu baax la Euh, docteur laaj bi may mujjee laaj parce que waxtu wi jot na mooy ñi nga xam ne dañuy suivre traitement ci koor gi te amuñu benn heure fixe boo xam ne war nañ ko mën a naan maanaam ñi nga xam ne mën nañu naan seen garab bu ñu dogee juste wala bu ñu reeree wala laataa ñoo xëdd ban moment moo idéal pour naan garab te du la gàllankoor bu ñu jëlee en compte temps bi ngay toog yépp te lekkuloo. waaw en général de toute façon garab moom lekk ba pare en général ah ça mhm. garab bi ni général lekk ba pare door a jël garab euh, garab bu ñu jël te lekkoo dara moom en général li ci li ci daal baaxul donc euh, tout dépend de yow ñaata yoon ci bés bi nga war a jël sa garab am na ñoo xam ñu bari ñu am tension seen garab ñaari yoon ci bés bi dañ koy jël donc euh, li leen di donc suba ak ngoon lañ ko war a jël donc ni ñu leen di euh, tegtal mooy bu ñu xëyee xëdd jël seen garab bu tension bu ñu dogee ba xam ne lekk am na dara lu nekk seen biir ñu jëlaat seen garab wala bu ñu reeree ba pare bala ñu tëdd ñu jël seen garab bu tension mhm. bu fekkee nag am na garab boo xamante ne yow mii ci diggu bës bi da nga ko waroo jël te boo ko jëlul mu indi la ay gàllankoor waruloo woor c'est aussi simple que ça kenn waxul nga woor rey sa bopp wala nga woor feebar donc ñi nga xamante ne c'est loolu yëpp encore une fois mi ngi dépendre rek ci si li la sa docteur di wax ak aussi li nga xam ne xel nangu na ko dañ mhm. maanaam dañuy logique voilà donc euh, ni Euh, booy jël garab la am dara nekk ci sa biir donc xëdd ak guddi nga xam ne reer nañu ba pare. Euh, jërëjëf euh, docteur waxtu bi jot na dañ lay jaajëfal bàyyi la nga tàggatoog auditeurs yi jox leen conseil boo xam ne mën nañu ko demaaleeg fekk talaata bi di ñëw ci beneen thème ci Allo Docteur. waaw maa ngi lay jaajëfal euh, Rosalie di jaajëf jaajëfal ñu woote ñëpp di euh, rek jéggaluwaat ci euh, retard bi ñu retar tey parce que parce que du woon seen coobare sama sama problème sama <laughs> donc may may jéggalu waaye li may bàyyee suñu auditeurs yi rek mooy ne gis nga koor dafa doon loo xamante ne occasion la pour non seulement jaamu yàlla mais pour aussi wéral suñu yaram gis nañu ni koor am na am na yu bari yu baax yu bari yu yu mu indi mën a indi ci wér gu yaram euh, muy muy di di wàññi suukar ci deret di la wàññi graisse suñu deret maanaam cholestérol di la wàññi tension ci ñi nga xamante ne dinañ am hypertension dina indi na raxas suñu butit aussi maanaam le gros intestin daf koy raxas génne salte ya fa nekkoon yépp dina ko dindi euh, ci kaw nag koor gi jaar yoon comme ni ñu ko waxee nii Euh, te nag may wax ne ni xam nga am na fukki fan yu des wala ñe juróom-ñeent fukki fan yu des et am na ñuy gunge parce que am na ñoo xamante ne bu koor yi bu korité jeexee rek dañuy enchaîner. Mhm. teg ci juróom-benni fan wala juróom-ñaari fan. donc am na ñoo xam ne fi mu nekk nii amaat nañu occasion am seen 15 jours yoo xam ne wala fukki fan ak juróom yoo xamante ne mën nañ ci woor woor bu sell bu fekkoon ni du du loolu lañuy def defuñu ko woon ñu def ko ba am wér gu yaram bi ñu mën a am yépp ci koor ci weeru koor bi. jërëjëf docteur Bintou Cheikh Seck may jaajëfal ba dara Socé mi féete woon ci partie technique bi ak auditeurs yi nga xam ne dugg nañu jox leen dig daje talaata bi di ñëw.